ëllëg mu recadré ko même bu fekkee ne euh, jubluwuñu ci mu recadré ko ci ci ci ci am mais looy def te déggoo ci euh, euh, ku la ne la tegal ci suuf bu yàggee nga kon nga def ne ci li nga nekk lu baax la te moom jaakaar na ne ci li mu nekk mu ngi ci mu ngi ci lu baax moo tax ñu am jafe-jafe <laughs> alors euh, le fait que DGI yi wala bokk ministère yi di génn peut être di fësal li nga xamante ne peut être bu dee am na ay njuuj njaaj ya nga xamante régime bi bi fi jógee dañu ko amal ci seen ay gestion je prends l'exemple du directeur général de Dakar Dem Dikk dégg nga démb li nga xamante ne def na ko ci ay révélation ci ab conférence mu mel ne billet d' avion boo xam trente cinq millions lañ ko jëndee sax moom daal lu tam nekkul stratégie politique tous les moyens sont bons pour am li nga xamante ne moom majorité absolue à l'Assemblée nationale gis nañu ñu ngi nii veille d'élection lañ nekk ñu xam ne fi mu toll nii à tout moment mën nañu am li nga xamante ne moom euh, majorité mais pour ñu am majorité boobu tamit il faut que ñu daal di def li nga xamante ne moom euh, peut-être euh, peut-être wax ci yi nga xamante ne moom la ñu jaayoon Sénégalais yi tey ba ñu teg leen fii Sénégal kat tey ji ñi fi nekk nekkoon ni ñu yoré won réew mi baaxul alal ji dañ ko doon loubal li nga ni waron utiliser pour liggéey ñom seeni poche lañ ko def wala seeni gafaga donc est-ce que lool tam nekkul stratégie politique bo xamné mën nañ japp né bu baax la tam. xam nga xam nga tey jii stratégie boobu encore une fois mhm. président de la république moko ko ndax moo ñëw taxo jàkkaarloo Sénégal yi na leen bi may mhm. bind assemblée ne leen nañu defee ni règlement intérieur ak DPG dina am Euh, jubluwuma ci woon pour pour naxa pour pour naxee mbay mm-hmm. dafa ne mu ne stratégie politique xam nga tey ji ñu ngi nekk di euh, jàngal Sénégal yi ne wax lu dul dëgg stratégie politique la am dañu seetlu li nekk ci ginnaaw wax ci ñu ngi jàngal Sénégal yi wax lu dul dëgg stratégie politique muy benn ñaareel bi premier ministre am génn na ak génn ak ay chiffres xam nañ ne loolu du dëgg amul wala ñun bokk man mii gëwuma ko en tant que expert financier gëwuma ko ku xam mhm. son ministre des finances ministre de de de l'économie sax lay wax docteur Abdourahmane Sarr mi toogoon ci wetam te nekk un mhm. produit de la banque mondiale moom xam na ne ne la mu doon wax du dëgg ndax xam na ne ne tey jii procédure yi nga xamné mom mo moo moom au niveau de la banque mondiale ak yi nek au niveau mm. du FMI xam nañ ne tey jii la wax né ne tey la Sénégal jaar ngir mëna a ay ay ay ay chiffres tegul ci yoon. Mm-hmm. DG yi nga xamné ne tey ku ci nek eh, yaa ngi ndax euh, xëy na kii nga wax mais buñu ñu fàttali ne ne Lat Diop biñ ko téyé LONASE est-ce que porte une plainte ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tey jii dinañ ci ñëw kaaw jigi jigi jigi jóob bi yooyu yëpp dinañ ci ñëw xam naa ils ont un problème avec les Diobène donc euh, c'est mm-hmm. loolu il va falloir que ñu remonter l'histoire mais il y a un souci par rapport à cela tey jii DG bu ci nekk bu yàggul am na DG dégg naa DG SNHLM bi génn aussi ku nekk wax na cest dire ku ci teg rek il faut nga toog à un moment donné génn ne wéy li ma fi fekk li ma fi gis nangam nangam mais la nga fa fekk la fa gis li ngay wax doo mës a brandir ay chef doo mës a brandir ay ay preuves day nekk loo xam ne rek c'est des déclaration à l'air yoo xam ne da koy jël def ko nii et que bu ñu defee loolu doo ci gis dara te chaque fois bu ko defee xoolal ki nga xam ne moom lañ fa wut wala seetal ki nga xam ne moom la ñuy viser su fekkee ne que ñuy bëgg a foofu nekk na koo xam ne ba mu fa jaaree yàgg na il faut ñu jéem a jéggi ba ba jot gestion bi nga xam ne xam amaana jaaroon na fa pour mën a teg ko baaraamu tuuma loolu pour lan est-ce que ñoom tey jii bi ñuy bi ñu toogee président taxaw ne ñëw ma fi def di di ñëw ma pour fayunte est-ce que tey jii loolu la ñu nekk di pratiquer ñoom li nga xam ne moom lañ nekk di def nii yëpp wutewul ak li nga xam ne moom lañ doon xeex dëmb ak bërki démb Macky Sall mi fi nekkoon. Mm-hmm. ne nii lay doxalee ci réew mi. kon ñoom bu ñu ñëwee moo tax ma ne la euh, y a le, personnage du chef de l'État et du gouvernement a changé mais pratique yi et malheureusement c'est pas ce que les Sénégalais attendaient loolu moo waral désespoir bi nga ne donc les DG et les ministres j'en passe parce que euh, nous avons dul ci ñoom un discours populiste mm-hmm. le secteur général du gouvernement <laughs> a depuis Macky Sall boo ñëwee taxaw di wax chiffre ko alors que yow sa bopp yaa ko daan défendre devant les institutions ñoon ñëpp tey yi bu ñu bëggoon wane le bon exemple dañ leen di démettre le ministre des finances Cheikh Diba mi nga xam ne moo yoroon euh, programmation budgétaire ba ñu taxee wax lool ci saas lañ ko waroon démettre mais pourtant Eurobond moom moo defoon communiqué lu tax du ñu taxaw waxaat ci loolu pourquoi les gens n'en parlent pas lu tax tey ji scandale yi nga xam ne moom mooy am yëpp chaque fois su amee il faut que ñu jéem a andi beneen actualité yoo xam ne dañ koy jot teg ko sur la table

ci seen discours yëpp ñaar ngay dégg impôt ngay dégg euh, euh, ak scandale impôt scandale loolu ngay te foofu lañ leen noonu doon xaare bu ñu demee bay bay bay bay bay dimbalikoo ci caaginu ne way euh, président bi mu demee tër réew nii lañ ko accueillir ak yu mel noonu dafa ne loolu moom mooy yore réew ñu ngi nax seen bopp wala ñu ngi nax sénégalais ndax du loolu la ñu waxante woon ak sénégalais dañu waxoon ne bu ñu ñëwee dañuy attaqué li nga xam ne moom

dafa nekk loo xam ne c' c'est c' c'est vraiment c'est vraiment désolant ak ci six mois de gestion ñu mën a gis lu mel noonu dafa naa ne nekk na loo xam ne gàcc gu gu gu rëy la ci ci Sénégal ba tey ji képp ku leen àndaloon ak ñoom wala doon leen défendre ah dafa naa ne tey ji yaa ngi yaa ngi raser les murs par rapport ak li nga xam ne moom nga gis tey te du loolu lañ doon xaar ci ñoom <laughs> alors ñu wax ci li nga xamante ne mooy tamit euh, séparation